ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur di leen gërëm sant yéen internet yi ñuy topp national ak international comme ni ñu koy defee saa su ne daal toog waxtaan ci lépp lu soxal làmb ginnaaw ba sos bëre ki nga xam ne mooy Alioune Seye numéro 2 am ndam ci kawam ak nu mu mën a amee ndam daal ndam la dañoo toog ak kenn ci nga xam ne ni ci la boo bu kenn ko tudd tudd zos di ko laajte muy Cheikh Thiam dañ koy nuyu bu baax a baax waaye Aliou Beuz yaa ngi ci wet bi maa ngi lay béggee bu baax a baax Cheikh Thiam maa ngi lay nuyu maa chair siyaar la jox sa wàcc waaye di nuyu sa caméraman bi ak euh, jàmbaar ji nga àndal di leen bëggee bu wér a wér tawféex. ginnaaw balaa ñuy ñëw ci défaite Zos bi rek retour Zos ndax ngeen ko gisee. no pour l' instant dugalaguñu recours pour l' instant dugalaguñu recours parce que foog ñu visionné bu baax parce que man dafa am lu ma xaw a jaaxal ci làmb ji quoi mooy Zos lan moo dagg suufu bët bi. man loolu daf ma jaaxal trop trop trop moo tax actuellement nii mënaguñ ci wax dara parce que foog ñu visionné ko ba pare. Mm-hmm. ñu balaa may ñëw sa ci komba bi Zoss géejoon ci làmb ba ne bàyyi na dellusiwaat ci làmb la moo tax la war a dellusiwaat. waa dellusiwaat bi kooku moom la concerné xam nga Zoss moo toogoon ne bàyyi na làmb Gaston proposé ko làmb te Zoss ak gason ku ne xam na seen diggante. Gaston bi mu ko waxee na ko dama bëgg nga dellusiwaat Gaston peeram la loolu mënu koo ko bañal yaa ngi dégg Gaston ba ñaar loxoom mu dellusiwaat si làmb tombeek tamit public ak ay supporters am ñëpp bëgg mu ñëwaat waa parce que ñun ñun mënuñu am kopp Zoss ñun Zoss lañ am ci quartier bi tey jii nii booy yëpp suñ bëggee bëre c'est grâce à Zoss koñ bi fii nii booy fii bëre yëpp suñ bëggee bëre c'est grâce à Zoss tombé public bi di ko réclamé Gaston tam bëgg ko mu nekk euh, tombé mu nekk euh, wokkatu ba daje ak geesu ñu daal mu daal di ñëwaat takkaan ngeemam dem bëre ji. ci lu gàtt ak temps bi ñu may def ñoo xaw a tënk ñëw bëri ki nga xam te mooy Alioune Seye ñi gis Alioune Seye def kaawoo ki nga xam te mooy Issa Pouye Zoss ñëw jël xale bi engage ko ñu seen combat bi ñu dem ba nga sànni combat bi yow nga ci xalaat. gis nga ñun combat bi dañ ci am déception benn déception rek lañ ci am. man xamoon naa ne sax su jàppee Alioune Seye leneen la ñuy wax loolu man biroon na ma mais ñun li dagg jos ñun loolu mooy suñ problème parce que jos jël boo jëlee coup normalement bu bu fekkee sa R4 dafa neewi da nga day day yi ba pare toj mais jos daa mel ni nga jël lancette rek rëdd suuf xef bi noonu la demee ñun comprendre ñu quoi ba léegi nii ñun comprendre ñu xanaa loxo Alioune Seye daam lu ci nekkoon wala dafa taxoon gàllaaj wala. non euh, du ma ne loxo Alioune dafa am lu ci nekk. kon loolu damay damay damay tooñ damay yaakaar peut-être si sama xalaat bopp sama analyse bopp laay def nag salteelu ma victoire ma dara damay yaakaar ne Alioune Seye peut-être gàllaaj yi mu takk ah, am na si loo xam ne moo dagg sos man sama analyse loolu la mais damay wax nii rek mais parce que visionné gu ma vidéo yi boobu démb amaguñ temps mais naa toog. man ak ñi ma war a toog ñu visionné ko ñu xool ba xam lan la ko parce que su doon coup bu dalee si kanam dafa war a fëq ba pare neewi mais neewul deful dara suufu bët bi fii rek moo mel ni nga jël lañ sa tracé ko. suufu du r bi de suufu bët bi la waaw fi xef yi di nekk foofu la. ñoo ko déggandoo ñu bari ñu ngi naan Zoss loxo bi dafa simmeeku ñu naan loxo bi dafa damm wala loolu yëpp du loxo du dara. bien vrai que Zoss amoon na poignée buy metti moom la bëre waale mais loolu teewu koo bëre mais li li li li ñu déploré mooy dagg suufu kii bi mu dagg loolu la médecin bi wax mënatul bëre ñu jël ko yóbbu hôpital dem faji waaw noonu la deme keneen ku la loolu daal lii loolu lii ma la wax affaire bi ñun daf ñoo jaaxal tellement que duñ comprendre nag waaw noonu la fa demee li ñuy wax rek yow gën ngaa jege Zoss xam nga li fa xew fu mu ne nii làmb ji ku ci nekk am na luñ la may ak luñ la xañ CNG mu ngi fi yéen nan ngeen di def. non côté boobu du ci mën a waxagum dara xam nga lu tax mooy comme sànq waxoon naa la ko foog ñu visionné vidéo yi ba pare ba xam après soo ko mën a dem CNG. bon ñu gën a jàpp rek gën a jàpp ay allo buzz gars yi ñëpp a ngi fi kenn bàyyiwul gën a jàpp rek gën a ñaaxaat seen mbër. waaw Zoss léegi lañu jóge réunion waaw affaire bi bu tanee mu ñëw kon ne entraînement am ñu xool ko ñu jox ñu jël ko dem bëre ñaan yàlla mañ si ndam waaw. non gars yi dañuy wax rek. gars yi Zoss man de dégg naa ci yooyu bay Zoss dafa jëlaat beneen combat. waaw mën na jëlaat beneen combat même bu fekkee dañ ko signaler ñaari combat wala ñetti combat parce que mbër yaa ngi ko fiy def. waaw ñu dem préparer rek ànd ak moom préparer ko ci fulla ak ci fayda ñaan yàlla suñu combat bii di ñëw bañ a demee nii. incha allah bon di gërëm ñëpp nag di gërëm gars yëpp bàyyiwuma kenn de A à Z di gërëm école ba écurie yi écurie bi yëpp Kaare Dev Aliou Beuz Ngañ Modou ah booy si jàpp yëpp xoola di leen di leen di leen parcelle parcelle 1 ba 26 Cambérène 1 Cambérène 2 Fadia Géejawaay ah Nations ñëpp daal ñi si jàpp ñëpp su ma limee du ma matal mais ñu si jàpp ñëpp ñu ngi leen di gërëm de près ou de loin ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax na xoola nañ xaar nañ xaar li ci kanam raw bët voilà. incha allah li ci kanam raw lu bët li may wax nag Zos ji courage làmb nii la parcelle gi indi nga fi ndam bu ne. ndam bu ne Zos indi na ko parcelle kon lii bu ñëwee gars yi dañu koy jàpp rek comme ni man day as wax encaissel nga gérer dañuy si gérer non dangay wax ñëwal. léegi dafa am benn soxna soo xam ne ni da see jàpp mention spéciale muy Aïda Saliou Aïda Saliou ñu ngi koy gërëm ñun jeune quartier bi yëpp ñun jeune quartier bi yëpp di ko gërëm bu baax baax di gërëm rik mi ñu booleeg moom di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñu si jàpp mais Aïda Saliou moom mation spéciale ñu ngi koy sant bu baax a baax moo joxe kaar yi moo jënd billet yi moo togg añ yi Aïda Saliou daal amuñu fay ñu ngi koy bàyyi ak Serigne Saliou mi yaakaar mu fayal ñu ko mention spéciale à ayla Saliou waaw. mu ngi noonu jaajëf bu baax Cheikh Thiam la woon waaye Aliou Beuz bu ko temps bi maye woon da ngay gën a xaal parce que gis naa li nga sonne ju combat bi lépp mais bu yoon jeexul waaw su lu jeex noonu lañ koy defee sa combat ñu indi réaction koñ ba fi mu toog nii Cheikh Thiam bu zos tanee incha allah fa lay toog daal di waxtaan mu gën a xuus ak moom noonu laa jox leen dëgg daje beneen yoon ak beneen événement làmb ci beneen nitu làmb jaajëf